ca kaw Tiwaawan woote na سيد ماسو سي دابا دافا واخ واحد ام سولو داخ لي خليفه بي واخ رن تي تم غامتي لي بقول للناس خصنا نين فخه با سين ديغنتي نين دي جيفلانتي جيفلانتي يو باخ سيني ويجور سيني باب سيني سيرين سيد ماسو سي دابا داف كو تنك وايي نك دافا ماتالي فيب نيت ني نك لا ني ورا جيفلانتي سي سين بير واخنا سين ديغنتي نيوم واخنا ديغنتي طالب بك سيرين واخنا نك لا ني ورا فخه با تينكي با تيكي طالبي كي لان ñuy jëfandikoo seen xamxam xam di jëfandikoo seen xalaat ñu di ko jëriñoo ñu am benn euh, diggante boo xam ne dafay tegu ci yoon dafay tegu ci lu même état bi ni mu war a jëfandikoo ak citoyen yi même citoyen ni ñu war a jëfandikoo ci seen diggante loolu yëpp suñu wéyjur sëñ maaso daf ko tënk ci discours am waaye bu leen fàttali ni Pape Matar Kébé moo ko indi bu njëkk ci ci discours ci discours boo xam ni li ñuy dund fan yii yëpp ci wàllu société indiwaat na ko pour ni xalifa bi nee na bëggoon na ngeen bàyyi xel ci lii te yaakaar naa ne loolu jëkkewul ci ñoom ndax Serigne Touba bu leen fàttalikoo bind na Masalikul Jinaan di wax ci société sénégalaise Seydi Hadji Malick bind na Zajrul Qulub di wax ci sénégalais naka la war a mel jullit bi naka la war a mel su fekkee ni dafa bëgg a yàlla te ba pare di dund dund gu tey ci société bi loolu yëpp ay ñàngale yoo xam ni tey war na nag jot na ngeen dimbali ñu ñu dugal ñàngalin boobu ci biir école yi xam ni fa la ñuy tëggee xam xale yi ñu ba dugal loolu ba mu nekk seen cëslaay ba mu nekk li nga xam ne ci dañu war a sukkandiku pour nekk ay citoyen moderne What? ndokkeel julit yëpp euh, di ndokkeel aussi tamit euh, kilifa Tiwaawan yi njëkkee ko ci xalif général ki fi teewal Seydi Hadj malik di ndokkeel moroomu xalifam yëpp bilan bi ñuy def ci gàmmu gi mooy euh, sant yàlla bi nga xam ni les enseignements de Seydi Hadj malik pendant cent ans mu nekk ci suuf ren ñu gis ñi ëpp ci ñi ñëw ci gàmmu gi ay xale lañ la tranche entre six sept dix ba dix huit ans ñoo ëpp Tiwaawan et moom mu am cent ans ci kaw suuf kon mission bi mu waxoon ni donc c'est la production de son école populaire et de ses universités aujourd'hui qui ont porté ses fruits les deux ans yu des des demuñu les enseignements ils tiré et les réflexions l'innovation le discours qu'on entendait souvent avec les marabouts aujourd'hui nous avons vu les marabouts qui partent dans le cadre citoyen donc l'engagement citoyen et communautaire bi Seydi Don Wote, sur la gouvernance maintenant les marabouts maintenant appliqués le changement de comportement aujourd'hui Pour le et que cette agression et cette menace maintenant qui menace même nos familles qui et que cet otage politique et cet otage médiatique et cet terrorisme qui rime maintenant dans les réseaux nous ñi lu ñaaw bon aujourd'hui ils les ont pris en compte sur les 10 jours de Bourdieu le Sénégal est en crise alors que l'esprituel, souvent le temporel est reposé au ci Nous ñu dem moment une nouvelle élite et une nouvelle génération beaucoup de religieuse aujourd'hui le marabout kenn ku ci nekk wax la sa message il a parlé de l'état sur l'économie sur les infrastructures et revenir encore sur les familles waxaat ak ñoom marabu yi ci seen biir daara ci du rek pour ñu jàng alcorane ibadat ya ngi fa mais furxaan mu ngi fa il faut que ñu jàngal ñi ni le comportement et la discipline donc lolu tay moy liñ ci tirer comme enseignement que jeunesse bi ñew tay ñew ni carrément que sen mam depuis 100 ans ñom approprié nañ ko et que xalif aussi a montré le modèle d'élégance et le modèle de management et que génération bi ñew carrément mettre en rapport avec ñom et que nous avons vu maintenant les xew wa Koskas tous les gars Nous ñu aussi les Sénégalais commencent maintenant à se décomplexer j'ai vu Ousseynou Ly Sédhiène mu Donc, mu bokk Koskas j'ai vu Abou Diallo mu tak badjam songu ba Matar donc c'est mo nit donc suñu ak suñu donc niñ len di sages ci réseaux sociaux parce que les Marocains, de ñu yor tout gouvernement et aujourd'hui il est temps à ce que sur les messages à faire les messages yi parce que bu ñu ba jël thème pour cela veut dire que le pays est waawan woote na dëkku leer baa ngi kaay leen gaañi ti waawan am